mais naxarlu tamit lu am dembe si sen concert bobu aja Adja euh, di ko massaw euh, di wax rek ni euh, service d'ordre ta dañu war xel ni citoyen duñu sene ennemi waxatuma la encore homme de médias parce que ñom sen liguey bu rafété buñu waxé sen liguey rafetna

pour que mhm. que ce soit euh, vraiment un incident pour nous dépasser. Mhm. vraiment di di rafetlu émission bi di leen encouragé ngeen continuer